ni moom moo di sunuy institution loolu naka nga ko naka nga ko jàngatee duutu man euh, laa ko jàngatee mooy sama samay samay position de principe du varier mooy ñii la stratégie de pourrissement bi la ñuy def tout à stratégie de pourrissement bi mooy xaar leen rek ñii ñu ngi waaj a dem ay fête après fii ku nekk affaire u Noël say doom ngay toppatoo tegal la làmb le premier janvier. Mhm. après ñu toog ba si yàgg mbir mi mujj ni mbirum Petro-Tim maanaam ñu fàtte ko kan moo ko njëkk commencé banaliser. wala sunu 400 milliards. waaw kan moo ko njëkk commencé banaliser c'est le président de la république garant des institutions moo ne démb si conseil des ministres que ni affaire rapport des cours des comptes jox naa ko premier ministre na si xool si war a def. yow nga jël deux milliards boo xam ne yow jàpp nga ni xalifa Sall moo ko jëlal réew mi deux milliards kott yow nga def ko sa combat. loolu dogguma la sax. waaw mille milliards yi. Mm. bi ñu ko commencé séddale. waaw ministère par ministère moom moo taxaw vingt heures. Mm. Sénégal yëpp toog di ko seetaan mu expliquer nan lañ koy répartir. exactement déclare kon ko kon. buñ ko discours à la ko luubalee. Mm. war na mën a taxawaat def discours à la nation wax luubal gi ni mu demee. exactement léegi mu ne. deux milliards yoo xam ne moom moo say taxawoon def ko combat parce que damay fàttali man damay fàttali chaque jour gis nga balaa muy entamer les procédures contre xalifa Sall mais dafa woote réunion benn Bokk Yaakaar comme ni mu wootee réunion tey jii nii jox leen photocopier leen rapport bi jox leen rapport ug bi jox leen ko ne leen je vais le kon xam nga kooku moom moo jëloon combat bu bu bu. bu bu bu Karim Wade kenn waxatu ko ñëpp xam nañ ni combat am la woon moom moo ko dirigé léegi bii nga xam ni moo gën a graaw bii moralement dërëm sax dërëm bu manqué woon ci mille milliards yi moralement da si war a jóg asantuma ampleur carnage ñaareel bi mooy Sénégal mu ngi waaj am pétrole Sénégal mu ngi waaj am gaz. Mm. Sénégalais yëpp jàpp ni. ñun ñi ñuy diriger ils son sont pas transparents yow bu lii waroon nekk signal fort nga jëlaat ne non non nañ ko nañ ko nëpp nëppal yow premier ministre bi nga xam ne du premier ministre dara nga xam ne benn waay la bu ñu xam ne dañ ko teg fii rek pour mu chauffer poste bi <laughs> mais en fait euh, tout tourne autour du président mooy lépp mooy buur mooy bumi mooy premier ministre mooy ministre de l'intérieur mooy ministre de la justice mooy ministre du développement communautaire yaa ngi dégg mooy lépp ñeneen ñi si des ñëpp loo leen wax ñu ne la vision du président comme si ñoom ñoom ñoom dañ leen fa teg amuñu sax lu ñuy wax loo leen wax ñu leen c'est la vision du président c'est le PSE kon kañ mun nañ leen fa bañ a teg bañ leen jox salaire mm-hmm. léegi loolu yëpp bu amee yow président nga banaliser Mansour Faye ñu ne ko yow dañ la si tudd ndax yow bu dee bu dee defoon nañ ko ñeenti pàcc yow ñetti pàccu koppar gi yow si sa loxo la nekkoon. mu accusé enquêteurs yi de politique. waaw mais yow yow yow waxoo ba léegi ñoom lu ñu wax du dëgg. c'est yaa ngi dégg ma yow bu fekkee yow wóor nga wóor nga yow fi nga taxaw baax na. am na nga waroon wax ah. commission bi may déglu bi may saytu na nekk ñoom ñëpp ay partie opposition duñ ma mënal dara parce que les choses son claires. effectivement mais amoo lu dul benn argument mooy ni wéy les euh, ñu nekk cour de comptes c'est des politiciens encagoulés. mais yow loolu est-ce ñun du ñu tiit. mais attends loolu sax dafa mel ni dañuy décrédibiliser suñuy institution. mais parce que man bi ma déggee mu wax loolu. man j'étais choqué. mais déggoo lu ma la loolu lay wut xam nga ñoom nee nañ dañu jàpp ni dafa am ay nit yoo xam ne ñoo nekk ci genre kuréel yooyu. Mhm. ay ay opposants encagoulés lañ ay hommes politiques lañ yoo xam ne ñoom ñoo bëgg yàq seen der xam nga à partir du moment. Mhm. où nga euh, nga teg sa argument ci loolu da nga bëgg ne sénégalais bi attention léegi finalement loo fi gisati rek muy genre xeetu weeje yooyu. Mhm. xamal ni suñu ay noon ñoo ko def. mais cour des comptes ñan ñoo fa nekk c'est des fonctionnaires. des magistrats des magistrats ak ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci li nga xam ne mooy finance publique. tout à fait nga ne ñu ñooñu lu ñu wax yow tontu woo waxoo dëgg la waxoo du dëgg mais nañu ay politiciens encagoulés la. kon mhm. ñun on en danger. vraiment. bu dee foofu corps yooyu ñu ne corps yooyu ñu fa nekk war ñoo def politique. Mm-hmm. yow ministre bu du ministre bu ndaw de yow ministre goro. du président <laughs> nga yow ñu suba teel naan ñu foofu ay politiciens encagoulés. c' est grave comme on est en danger. Euh, euh, communication disons le c' est pas nouvelle parce que euh, defoon nañ ko fi OFNAC ci ay jamono mu indi woon fi coow lu ba ñu ne biir nag ña fa nekk ñëpp daanaka dañoo far dañoo jeng on laisse passer peut être on on a pas laissé passer mais waxtaan nañ ko tuuti mais tey la gën a fës encore pour boo xamante ni li mu épinglé c' est clair net. Euh, et puis am ci ay irrégularités yoo xamante nii à noter à n'en plus finir et ci ministère yëpp malheureusement euh, tey nga taxaw di jiiñ yi nga xam ne ñoom ñoo di suñuy euh, magistrat yi nga xam ne tey ñoom la ñu yaakaar ñu gàkkanti justice bi leeral fépp fépp foo xam ne na lëndëm am na fa nga jiiñ leen lii est-ce que du bu ñu ko continuer nii suñu institution yi dootu amati benn valeur ci réew mi fii nga gis un ministre de la république taxaw ni <laughs> couleur u OFNAC day ci benn parti c'est grave ministre de la république. Hmm. nga toog nga gis koo xamante ni député la. Mhm. daanaka jàpp nañu sax moom mooy buur di bummi mhm. taxaw à l'Assemblée nationale ne diw bi nga fi defee sa déclaration de politique générale maa la fekk si te la ma la jox tout la sauf lu jub. li ko jiitu mu toog ci télévision ñëpp di ko dégg. ci assemblée nationale. mu ne diw de du wax parce que. la ma ko jox fa ma ko jëlee man nangu naa ni jël naa ci ki nekk ni moom jël na mhm. waaye joxe na dama la bëgg a wax fa maanaam nu ñuy def ba màbbal moom ay waxam ci bi muy soog a falu ak la mu jaayoon Sénégal yi je rappelle que ñun jafe-jafe yi ñu amoon ak le président euh, président Abdoulaye ca jamono jooju nekkul woon ndax def na wala deful ci réew mi mhm. Mhm. li taxoon Sénégalais yi génn ne du laal ci troisième mandat def ci lañ ci defoon ba ay bakkan rot ci mhm. mooy cette mal gouvernance bi ñuy ressentir ba ci au plus haut niveau taxoon nit ñi doyal ca ba ñu gisoon à l'époque am kenn ci dignitaire ki taxoon ni bis bu ñu ñàkkee nguur gi ñu ñëpp ci kaso lañ jëm. Mhm. oui ou non. dëgg la loolu yëpp da doon renseigner ci situation yu ñu tallu woon ci carnage financier bi ngay décret tey waa diggante boobu ak léegi lan moo bees ñun on di indi ñëw ci situation boo xam ne du soppeeku au contraire. Hmm. saa yoo yeewoo nga gis li koy alimenté. moo tax ma ne la tey yii ma la tuddal ak yeneen fii avant scandale bi yaatu ñoo fi jaar mais su fekkoon wàccoo woon nag la mu waxoon bi muy soog a jot ci réew mi nga xamante ne. Hmm. yaakaar naa deful woon hmm. sax euh, prêter wul woon serment. ci déclaration bu njëkk ba. ne du ma protéger kenn la patrie avant le parti. au-delà de slogan boobu. mais même le président Macky Sall pouvait euh, euh, def benn coup de sifflet. jël juste hmm. euh, dossier bi. mais moom laa yor jébbal ko ministre de la justice xam nga liy metti et puis ñu ubbi enquête judiciaire ci xol mooy loolu. mooy vraiment yow constat bi et puis bu leen fàtte ne rapport bi c'est un rapport contradictoire hmm. Hmm. définitif maanaam li mu bëgg wax mooy nii ñëwul xëy rek ñoom ñoom waa Cour des comptes dem càmbar duudu ca lañ ko dénk xool ko ñëw rek. produit rapport bi. déedéet. quand même y avait des réponses. mais moom la maanaam de buñ la buñ la nee ah fii de leerut lii de jàpp nañu jubul. Mm. fii nangam delloo la ko pour yow nga indi ay leeral ci yooyu ñu pointé. nga ne xaalis bi waaw bu fekkee ci. wala nga nga <laughs> nga nga ne xaalis bi ma fu mu dugg. justement <laughs> mais léegi lan moo leen war lu mooy ni ñoom sur la base de seen mission. Mm-hmm. ñu def lañ ca war a def. ba pare nag. tey même d'ailleurs le ministre de de de euh, de, de des finances weddiwul li nga xamante ne moom la cour des comptes wax tey sànq ñu ngi jàkkaarloog taskati xibaar yi moom ak le porte-parole du gouvernement nangu na ni ci fi ñuy joxee recommandation na ñu mhm. ci ubbi ay information judiciaire que ni nangam ci koppar njort nañu ni jaar na fu mu warul jaar mhm. lan moo waroon gën a mën logique lu mooy ni nañu ci keccet le premier ministre pour mu def lan cest di dire maanaam euh, nañ ko dénk pour mu lan yow ñii ñooy saytu saytu nañu génnee na njort nañu ni lii am na mais fa mu war a jaar kay pour ñooñu définitivement ñu wax ñu la ca am ak la ca amul mais du premier ministre du keneen ci réew mi cest à loolu foofu ngay comprendre ne pourquoi à chaque fois gouvernement mu am jafe-jafe non seulement ci communication bi laa koy sax mm-hmm. mais ci même bu ñuy communiquer askan wi du leen jàpp au sérieux benn xale bu ndaw mooy xëy rek ni li gouvernement bi wax du dëgg lii muy dëgg ñu bëri ànd ak xale bu ndaw bi wedd gouvernement bi parce que da gis ni uh-huh. approche bi ak yii génn ci pénc bi uh-huh. niñ ko waroon régler dañ ciy boole yeneen saupoudrage yoo xamante ne à la limite dafay feeñ dafay flagrant c'est-à-dire un un président de la république boo xamante ne nee bi daf la écœuré uh-huh. mais quand même lii yoon mooy ñoom ñëpp dañoo war ni pat ñi ci ji ñu dañuy génn di def ay lii di wax déedéet du ci penc moom ngay setee du ci jaar ay télévision du ci ay nangam ngay setee déedéet fa setee mooy ñi nga xamante ne tey ñoo amee mission wu ñu tuumaal ci réew mi ñu mën a wax li ñuy wax ndax am na wala amul léegi nag boo ñu bëggee détourné ci loolu nga ko gi pour man da ngay jéem a guddal jël mhm. te gis nga euh, attention mhm. bilan ñaar la de te li ñu wax nii dafay bokk ci bilan immatériel président Macky Sall mhm. te gis nga perception ak ressenti ci réew nguur ku ko bàyyiwul xel ak ku jiite réew xamoo yow li nga amel affaire. Mhm. perception ak ressenti daaneel na réew yu bëri mais leneen mooy nguur goo xam doo anticiper ngir joxe la bonne information ci lu mënti xew ci réew mi mooy indi ko ci nekk da ngay xalaatal sa bopp te souvent am na loo xam ne bu toqee ci xelu askan